asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ci ndigalu sëriñ Mor Faati Mbàkke gaawaan di xalifa maam Cheikh Anta Mbàkke boroom gaawaan yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér sëriñ Jili Mbàkke di xalifa sëriñ Moodu Maamun ak mbooleem njabootu sëriñ Moodu Maamun Mbàkke yàlla ñu fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteefu sëriñ Abo Mbàkke moom sëriñ Moodu Maamun sëriñ Cheikh Abdu Mbàkke di xalifa sëriñ Amdi Mbàkke Daaru Salaam ak mbooleem njabootu sëriñ Amdi Mbàkke yàlla nañu fi yàgg lool te ànd ak wér mooy soññ mbooleem jullit yi yi nga xamante ne bi mooy seen bultu ci sëriñ Tuuba ci àddee xamante ne bi njabootug borom gaawaan at mu jot daañu ko jébal ki fi nekkal Serigne Touba atum ren ñu jàpp ko le 5 janvier 2019 moom Serigne Cheikh Abdou di soññ mbooleem ñu aju ci kër gi rawti seen buntu ci Serigne Touba fépp fu ñu mën a nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew mi ngi di soññ ci liggéey bu am solo boobu nga xamante ne bi àddee la ju jóge ci borom gaawaan jëm ci Serigne Touba mu war a nekk juróomi fan ci weeru janvier atum gannaaw loolu itam mi ngi ñaanal jullit yépp ay xéewal rawti taalibe yi ba saa su nekk li ñu bëgg a jëfal Serigne Touba ñu koy def nañu ko bëggee taam ci lu kaw seen njort wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.